din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di siyaar ba del si ci eh, seen bi incha allah eh, kon borom te bi da jeexal lépp lu mu wax wàllu julli ak njàppaw lu ci mu bëgg a tuxoon ak jëm ci ñetteelu ponk bi te mooy azakaat mooy asaka eh, ndax azakaat dafa bokk ci arkaani buniyal islaamu ala xamsin sahaadatu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iqamatu salaat wa itaawu sakaat la ca teg suñ borom yi tegale na ay aaya yu bëree bëree bëri ci alquran la ëpp juróom-ñett fukk yoo xam ne su waxee eh, aqimu salaat wa aatu zakat la ci teg ak nu mu jëfandikoo baat yi nag hmm. tax gannaaw bu ñu noppee ci julli rek ñu tuxu ci asaka mais kitaabu sakaat li mooy téereb asaka furidat farataale farataaleef na azakaatu asaka fiima ca la nga xam ne wala nga ne fiima ci lii nga xam ne yor tasan def na ko bind eh, aynin te mooy kee mooy wurus ak xaalis wa xabbin ak pepp wa simaarin ak ay meññet wana xam ak njuru kër nee na farataaleef na asaka ci yi lay bëgg a wax ba ci nekk mooy wurus wala xaalis dañ ci joxe asaka pepp noonu xeeti meññeet yi noonu juróom kër yi nag mooy xar wala bëy wala nag wala gëléem yooyu dañ ciy joxe asaka du ci nekk des na ko teqaleel mu ne yi nekk na ci kee muy wurus ak xaalis wala anxaami ak juru kër yi xaqat yay na ku laamin mépp at yekkamul moom dara mat mu ne juru kër euh, mooy yim la ak wurus ak xaalis moom de des na ci joxe asaka waaye nag moom at mu nekk lañ ci joxe asaka maanaam li nga ci am saa yu matee at rek ñu digal la nga joxe asaka eh, duñ ne la nag at mi danga koy tàmbalee rek ci mujjug tabaski ba ca tàmbalikaayu tam xarit wala ba fa tabaski am déedéet eh, lu ci nekk rek day am ci day yem ci diir ba nga ko amee woon bu fekkee ne eh, xar yi da nga amoon jur gu ci weeru rajab wala nga amoon alal ji yees ci weeru rajab kon bu weeru rajab del see rek ci foofu nga joxe asaka kon at bi mi ngi tàmbalee ci diir ba nga amee woon alal ji rek wala ba. Eh, juru kër gi dikkal la woon rek foofu lañuy ñuy joxe asaka waaye lu matul at kan kenn ci joxe asaka wala xab bu pepp nag yu fa yu raamu def na ko sàkku bil ifraat yi ci dijji fekkee ne xeetu mbay la mel ni pepp ak yu ko nur yooyu moom bu dijjee ba ñor boobaay rek asaka la ci war waatu xaqoo yow ma xisaadi yi bis ba nga ko góobee waaye bis bu ñoree rek eh, asaka war na ci nga xam ne tey bu fekkoon ne eh, dugub ji dafa ñor te tewude ngay mboolo wala ngay daggdi maye kon loo daggdi maye mbaa nga mboolo koy daawar nga kalkin ko xam nu loola toll prefe booy génn asaka nga génnewaale ci loolee wa tamru tàndarma wa sabibu ak resin bi tëyi bi nekk na ca teega bu fekkee ne nag xeeti eh, lu men tàndarma ak resin moom bu ñoree ba neex na mu war a neexe rek boobaa foofu lañ ci war a génne asaka moom bu ñoree ba neex na mu war a neex rek boobu foofu la ci asaka di wax boo fi si sayti nekk na ci boroomu diw min sayti yi ca diwam ko waaye wal xab bu pepp man a yëf yi dana matale nee na lépp lu am ak diw nag mënees na waa génne asaka ca diwam ko bu fekkee ne dañ ne nag li ñuy wax olive olive mu zeytoon dañuy wax ne moom bu fekkee ne am na diw moom du doy nga génne ko ci lu dul diwam ko ok mu ne yeneen yi nag euh, mën nga ko génne ca diw ga boo ko génnee ca pepp ma it ba tey dana baax waxee moom euh, festimaari ca meññet wala xabbu ak pepp ma alonzuru mooy fukkeel ba kon waxiya gi dafa dellu ci an nisaab ne waxiya moom nisaab festimaari ca xeeti mañ meññet ya wala xabbu ak pepp ma alxuzuru mooy fukkeel ba aw nisufu wala genn wàllam ga in yajur ndéem da nga diri alata sàq yi jëmtukaayu suuxat ga mu ne bu fekkee ne xeeti meññi di nag eh, walla pepp yu yooyu moom eh, nisaab maanaam la la nga ciy génne asaka eh, mooy kaaru fukkeel ba maanaam loo ci xaaj fukki xaaj benn ba ngay génne hmm. fekkee ne fukki fukki barigo la nga génne benn barigo hmm. nga génne benn bari ok loolu nag mooy bu fekkee ne yow euh, da ngay bay noonu rek waaye asamaan si mooy suuxat mel ni mbayum nawet yi ko nurwee da ngay bay asamaan si bu fekkee ne nag yow da ngay yor say jumtukaay di bay maanaam di roose comme mbayum dëree yooyu wala machine mooy roose wala waaye yow yaay fay machine bi di roose boobaa moom kaaru fukkeel ba ngay génne maanaam boo amee fukki bari barigo génn wala barigo ngay génne kon lépp loo am boo ko calculé ba xam nam toll da nga koy xaaj ci digg ba maanaam da nga koy def fukki xaaj jël benn xaaj ba xaaj ko ci digg ba génn benn xaaj ba ok waaye bu fekkee ne nag asamaan si mooy roose mooy def lépp yow euh, kii rek nga ci am boobaa kon boo ko xaajee fukki xaaj benn xaaj ba ngay génne kon nag mu wax la lan mooy nisaab ci yooyu mu ne xamsatu aw suxin juróomi wasq nisaabun mooy nisaab fii himaa ci ñoom ñaar mooy alsimaar wala xabb Euh, nee na nisaabu mbay nag muy pepp ak xeeti meññat yooyu lan moo ciy nisaab mu ne la mooy juróom-benni wasq juróom-benni wasq nag booy boo wax rek juróom-benni bërigo juróomi wasq la wax waaye juróomi wasq nag mën nga koo tënk rek ci juróom-benni bërigo kon jàppal ne xeetu mbay lu mel ni pepp ak meññat yi lépp loo xam ne am nga ci juróom-benni bërigo yu mat rek asaka war na la waaw loo ci am juróom-benn yu mat asaka war na la bu nee ñu ko waxoon rek na nga mooy fukkeel ba ngay génne bu fekkee ne asamaan si mooy suuxat bu fekkee ne yaay suuxat di roose wala machine di euh, suuxat ngay fay euh, genn wàllu fukkeel ba ngay génn hmm. fii fiddati nekk na ci xaalis xul waxal ne mi ataani ñaar téeméer ñaari di dirhaman ci deram bu nee bu dee xaalis nag mooy xaalis seefa nee ñaar téeméeri dërëm yoon mooy tolloog asaka ji ñaar téeméeri dërëm yoon nag bokkut ak suñ ñaar téeméeri yi suñ mille yi gone yoo xam bokkut ak ñaar téeméeri dërëm yoon léegi kon faw nga dem ca tëgg ba bay liggéey wàllu jaaro yeeg yooyu ne ko waaw benn ngaram wurus fa mu toll fi mu ne bu la ko waxee euh, noonu nga koy calculer ba xam euh, nisaa bi xaalis fu mu toll fi ne man ndax moom day yéeg a ko di faral di soppiku di faral di tuuti di faral di néew moo tax faaw boo soxla rek nga manipuler ko ci eh, eh, cinq cent quatre-vingt-quinze grammes yi ñu waxoon ne moom la ndax <coughs> benn dërëm yoon dañuy wax ne eh, ñetti ngaram yi matut maanaam ñetti ngaram yu manqué ñetti ñetti ngaram yu manqué la léegi nag ñetti ngaram yu manqué faaw da nga koy manipuler ba mat cinq cent quatre-vingt-quinze bu ko defee lu génn rek nga xam ne mooy sa asaka ci jamono boobu xisroona diinaaran ñaar fukki diinaar nisaabul mooy nisaab fi saab ci wurus rubuul usri kaaru fukkeel ba wajab war na fii ma ñoom ñaar na wurus nag nisaabam moom mooy boo ci amee ñaar fukki diinaar boo amee ñaar fukki diinaar moom am nga nisaab ju mat sëkk ci wurus bu ko defee eh, génne asaka daf lay ko defee nag kaaru ba ngay génne boo diggee kaaru fukkeel ba mooy boo ko xaajee fukki xaaj jëlaat benn xaaj ba xaaj ko juróomi xaaj maanaam ñeenti xaaj loolu ci gàttal mën nga ne rek boo ko seddee boo ko defee ñeent fukki xaaj benn xaaj bi ngay génne asaka ndax ci misaal tey million boo ko xaajoon fukki xaaj jël benn xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj booba ndax boo ko xaajee fukki xaaj xaaj bu nekk day doon ñaar fukki junni ñaar fukki junni boo ko xaajee ñeenti xaaj day doon juróomi junni muy vingt-cinq mille kon te million bépp boo ko tegoon def ko ñeent fukki xaaj maanaam diviser ko par 40 day génne vingt-cinq kon man nga ne ci gàttal euh, boo ko diviser euh, ñeent fukk 40 40 euh, bu ca génn rek xamal ne mooy sa ndax wuute wuute ak liñ ne la da koy xaaj fukki xaaj jël benn xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj bee daa gën a gaaw rek hmm. kon xaalis. ak wurus dañ cey génne asaka mooy kaaru fukkeel ba kaaru fukkeel ba mooy boo ko defoon fukki xaaj benn xaaj ba nga defaat ko ñeenti xaaj loolu loola ngay génne asaka mooy li ma wax léegi boo ko séddalee ñeent fukki nit daal lu ci génn rek mooy doon sa asaka ci nisaab ak wurus euh, bu ko defee nag boroom xam-xam yi nag ñenn ñi dañuy wax ne euh, nisaabi nisaabi xaalis boo ko calculé ci nisaabi juru kër yi day faral tuuti lool ndax boo xoolee xaar bala nga cee génne asaka dangay am ñeen fukk gëléem da ngay am juróom eh, te doo génne gëléem sax ca saas nag dangay am ña fanweer yu mel noonu nag boo boo ko xoolee boo xooloon njëgu loola te xool ko ci xaalis bi liñ ci génne asaka day xaw a tuuti lool moo tax ñu ne ah tey ñoo jël ko ne asakay xaalis tënk ko ci wurus bi rek comme moom du wurus du faral di soppiku léegi def ko rek muy quatre-vingt-cinq grammes léegi koo xam ne la nga yor ci xaalis tolloo nag waleeru quatre-vingt-cinq grammes asaka war la bu fekkee ne tolloowut ak waleeru quatre-vingt-cinq grammes asaka waru la euh, kon loolu moo gën a jàppandi kon quatre-vingt-cinq grammes nga xam lu mu toll ci xaalis bu sell bi buñ la ko waxee nga manipuler ko xool loola ba xam li nga yor ci xaalis toll na noonam déet bu na tollee asaka war la bu na toll rek asaka bañ laa war ok kon suñ bindu tey mooy loolu ñu taxaw allah dellusi kon continué tabarkàlla jërë ngeen jëf